mën nañu comprendre que mu am sa besoin citoyen de contrôle euh, ci li nga xamante ne si mooy cette force Covid parce que damay faral di wax naan euh, dans nos pays sous-développés amu ci benn détournement bu nit mën a nangu rawatina nag ci période bii nga xamante ni si période de pandémie la mu am ay jafe-jafe yoo xamante ni si ñëpp yëgandoo nañu ko ñu laaj ay efforts citoyens yëpp kenn ku nekk ci ñun am lu mu contribuer mën naa nekk contribution matérielle mën naa nekk contribution financière mën naa nekk rek contribution ci renonciation à ses droits et libertés donc lu mel noonu bu amee ñu jël alal joo xamante ne si sénégalais yépp ñoo ko moom ñu dugal ko ci xeex boobu nga xamante ne si tey nasaxal na lu bëri ci suñu économie war nañoo veiller à ce que mu bañ a am benn possibilité de soupçon buy mën a am ci gestion fonds boobu noonu donc le contrôle citoyen il est fondamental beneen bi ci des moom moo di ne ñun ñi nga xamante ni si ñun la yàlla dogal tey jii ñu nekk ci position wu ngànk euh, li ñuy wax nguur gi maanaam di di gérer euh, le le pays war nañu sàmmoonte ak suñuy ay garantie ba nga xam ne du ñu bàyyi xel ñaar buy mën a am tey jii jàpp naa ne bu fekkoonte ne euh, gérer woon nañu ko ni ma xalaat ne noonu la waroon demee maanaam président laloon commité bi nga xam ne moom moo waroon a superviser. toute la gestion et non pas seulement un comité de suivi ñi nga xamante ne sii ñoom ñooy des membres de l'opposition nekk ci des membres de la société civile nekk ci ñëpp ñu représentatif ñu représenté ci su boobaa xëy na du am jafe-jafe yi ñu am mais comme am na ba pare tamit teg nañ comité bi mu nekk lu baax loo xamante ne sii ñu ngi koy rafetlu du ci félicité président mais aussi man li ma jàpp ne war naa am moom moo di ne président war na diligenté les corps de contrôle jël ci benn corps indépendant bu mel ni IGE wala bu mel ni euh, OFNAC wala ñeneen ñoo xamante ne si seen kenn nattablewul seen indépendance ñu saytu li opération yi jot am ba nga xam ne bu fekkente ni leeral nañ ñu ne amul benn jafe-jafe bu ci am amul benn njuuj njaaj bu ci am wala lenn lu lënt lu ci am sénégalais yëpp mën a dalal seen xel ñu xam ne kat seen alal jooju noonu ni ñu ko gérer noonu lañ ko war a gérer. da nga jàpp ne gestion transparente non non non moi moi su rekkente ne sax damay am jugement c'est parce que damay jàpp ne kilifa yi ñu ko jox xam nañu li ñu leen jox kon man préjugé favorable laa ci mën a am d'autant plus que man ak ñoom ñoo bokk camp mais citoyen sénégalais la Sénégal moo ma gënal leneen lu dul Sénégal te bu ma sañoon aussi lu mel noonu lu leer rek moom moo ci am dafa baax pour ñun ñi nga xamante ne si ñun ñoo féete ak président. yu mel nii ñu mën a leeral sénégalais yi ne amu ci dara lu lënt te li koy def mooy comme li ma wax ñu diligenté benn corps de contrôle mu ñëw saytu opération yu jot jàll yëpp xool ko cat ba cat bu fekkente ni lépp leer na ñu wax sénégalais yi ne leen kat lépp leer na amul benn jafe-jafe bu ci am comme ça xel yi mën a mën a mën a dal ci loolu. bu fekkente ne am na lu ci lënt nag ñaanuma ko yàlla parce que comme li may wax man foofu laa bokk moo sañoon kon kenn duñu jëm baaraamu tuuma mais bu amee lenn lu ci lëntit ñu jël mesure de sanction yi nga xamante ni si yu diis lay doon ñi nga xam ne ñoo def faute yooyu noonu ñu teg leen ko.